Philippe waare na xibaar bu baax bi ñu ngi jukkee nettali bi ci téere jëf ya saar juróom-ñett saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu nanu bamtu nettali bi weesu benn naka la seytaane di jéem a fànqe liggéeyu mbooloom ñi gëm Yeesu dafay jeñ ñi gëmul ñu fitnaal mbooloom ñi gëm def na itam ba ñi gëm di xeex ci seen biir ñaar lan moo doon liggéeyu ndaw yi seen liggéey moo doon jàngale kàddu yàlla gi di ñaan ak jiite mbooloo mi ñett lan mooy liggéeyu ñiy toppatoo dundu mbooloo mi seen liggéey mooy dajale alal ji séddale ko ñi nekk ci soxla ñooy dimbali nit ñi bokk ci mbooloo mi ci seen jafe-jafe. ñeent ki ñu dóor ay xeer ci ñooñu ba mu dee naka la tudd. Étienne la tudd. juróom kan la Étienne gis bi mu téenee xool asamaan. yeesu la gis mu taxaw ci ndeyjooru yàlla baay bi juróom ci seen xalaat ñan la yeesu di teeru ci asamaan dina teeru ñépp ñi gëm ne mooy kileen musal